monsieur le ministre majorité bi de tàmmal nañ ñu deux kaw constitution bi ci nu leen neexee nag code pénal bi la ñu dal ni ñu dalee ci code pénal bi itam l'homme est derrière sa am na ñu ko wax fii ndekete am na lu tax ñun dañu defoo ne loi dafa impersonnel defoon ne loi dafa nag nga am loo ñu digoon li nga ñu digoon mooy les grandes réformes bi ñu ko ñu waxtaane ko ñu wax ko fu nekk revendiquer benn loi ñu ni ko loi boobu garde de sceaux lañ koy digee lañ koy lañ koy lañ koy sante ndax garde de sceaux moo ñu taxawu boole ñoo ak ay service am ñu xool ko fu nekkoon délit ñu criminaliser ko requalifier les faits requalification tax ba gis ni nga requalifier les faits kenn du fi génne texte 2016 parce que mënuloo ni effectivement ci article ci titre 2 article 279 alinéa 1 ñu ngi assimiler manifestation yi à des terroristes te mooy jéem a neutraliser opposition bi mooy empêcher le peuple de faire de de mettre un à ce qu'on objectif de faire une troisième candidature te loolu peuple bi kenn mënu leen a alerte soo gisee ñuy wax wax ji ñuy wax c'est-à-dire que fii majorité mécanique moo fi nekk waaye majorité mécanique boobu dafa am ku leen ëpp doole muy le peuple monsieur le ministre moom la jàppoon ni mooy terrorisme ñun di nga ñu waxaat léegi booy tontu lan mooy terrorisme ndax ñun li ñu xamoon ci terrorisme mooy terrorisme bi ñu ko waxee ci senegal dañ cee boole woon kilifa diine yi boole ci société civile bi boole ci groupement de femmes yi man en tant que maire defoon naa ay commité de veille pour que képp koo xam ni ñëw na ci koñ bi te nga xam ni amul profit boo xam ne dal na xel nañ ko signale tout ça pour freiner le terrorisme tey bu ñu bëggee ne un honnête citoyen un opposant qui qui qui qui fait des manifestations tey ñu bëgg ko assimiler terroriste ñun bu boo pare di nga ñu wax lan mooy terroriste monsieur le ministre boo paree di nga ñu wax lan mooy appel à l'insurrection monsieur le ministre parce que boo waxee opposant mu ni résistance te tey résistance boobu suñ ko bëggee a assimiler requalifier les faits de l'appel à l'insurrection dénoncer du terrorisme boo paree di nga ñu wax lu mu signifier monsieur le ministre en page 4 du rapport wax nañ redéfinition de l'association de malfaiteurs di nga ñu wax association de malfaiteurs mooy lan bala ñu koy bala ñu koy caractériser à des de terrorisme monsieur le ministre li nga xam ne moom la ñu bëgg a moom la ñu président digoon mooy ni dina diggu dugg di wax ci réseaux sociaux yi réseaux sociaux yooyu infraction liée aux technologies de l'information et de la communication di nga ñu wax fan la jëm di nga ñu wax fan la jëm parce que réseaux sociaux yi doolu nañ koo xam ni kenn mënatu leen a arrêté monsieur le ministre yooyu boo ñu waxee définition yooyu wax ñu ni nga xamee ni moom nga requalifier les faits ñu wëlbatiku pour alourdir les pen bu boobaa dinañ xam ni li génne woon 2016 redéfinir nañ ko comme comme comme terme bi ngeen ñu jox te buñ ko redéfiniree effectivement dinañ alourdir les pen bu ñu alourdiree les peines loolu mooy dal ci kaw nit ñi mooy dal ci d'honnêtes gens mooy dal ci ku ñu bëgg a dal te loolu yitam ni ma ko waxee woon rek monsieur le ministre majorité bi mën nañ ko voter de mais peuple bi duñ ko nangu. parce que le Sénégal est un peuple libre Sénégal dafa am un peuple libre boo xam ni am na yenn nooteel yoo xam ni duñ ko nangu ñun da ngeen woote ko yii yëpp waroon nañ ko ci wax kenn waxu ko ci ñu wëlbati ko ci gannaaw gi daal di bëgg a une majorité alors que ay sujet de discussion la woon bi nga xamee ni ñëw nañ ni terrorisme ñëpp dañ ci engagé wu pour xeex ko dañu dañu dañu ko condamné dañu dañu nekk benn Sénégal nanguwuñu dara dugg fi te dara dugg fi itam loolu nag su fekkee ni yàlla dogal na ñu yegg ba fii ngeen war a jël la pleine mesure de cette stabilité mën a xam ni ñii ay nit a ko def kenn waxul lu jëm ci yàq ko kenn waxul lu jëm ci homogénéité bi nga xam ni moom la sénégalais yi am acteurs yëpp àndandoo. soutenir les efforts du gouvernement pour combattre le terrorisme ñu bëgg a banaliser terrorisme bëgg ko assimiler à des manifestations bëgg ko assimiler à des discours je pense que terrorisme c'est plus sérieux que ça et il faut revoir le texte et bien le rejeter je vous remercie